coach soose di coach su écurie Fass Ndakaaru ñu fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu làmb Modou Lo ak ki nga xamante ne bii mooy Boy Niang di combat ba nga xamante ne bii le premier janvier la war a am incha allah sa euh, coach ñu lay nuyu. Euh, Mbaye Babacar maa ngi lay ziar di la bëggee bu la jox sa yeewaay di ziar sa caméraman bi di ziar waa yëpp di ziar bokk internet yëpp tamit ak monde lamb yëpp maa ngi leen di di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay ñun ñëpp. niñ koy sekk ak yow saa su ne bu ñu jëmee ci combat bu mag nga décortiquer ñu kombaa bi ku ci nekk nga wax ñu lan la am ci combat bi diggante amaat diggante Modou loo ak booy Niang. waaw Modou Lo Boy Niang bu doy waar combat bu combat bu doy combat moo gën a doy waar am yëpp te na mbër yoo xamante ne ku nekk da nga am calcul ku nekk maanaam ku nekk am nga loo xam ne mën nga ku nekk am na loo xam ne mën daan mën daan moromam ñoom ñaar ñëpp moo tax combat bu doy waar quoi. combat bi ku fi ku ku nit ñu bëri mun nañ juum si seen kàddu maanaam bu ñu joxee favori mën nañ juum mais lamb la joo xamante ne lamb ju doy waar la. nga ku ci nekk da nga am lu mën a daan sa morom Modou am na lu mën a mën a daan Boy Niang Boy Niang am na lu mën a daan euh, Modou boo ñu ko doon yaatal. waaw ma nee ku nekk am loo loo mun daanee sa morom parce que ñoom ñaañu mbër ay mbër la ñoo xam ne dañuy bëre am nañ mun nañu bëre mun nañu xeex Boy Niang li ñu la si moom si bëre sax lu bëri da koo Boy Niang ñu bëri ñu ngi wax Boy Niang Boy Niang mais ni ma xamee Boy Niang man ni ma xamee noonu laa xamee Modou Lo Modou Lo ndanaanu bëri loolu kenn du ko naan naan naatable Modou Lo ndanaanam si làmb kenn du ko kenn kenn du si werante mais booy bi dafa nëbb mbëri lu bëri si mën a bëreem. moom Boy Niang waaw. kon a wax ne Boy Niang li nekk ci moom woneegu. non dama mën a bëreem dafa nëbb a bëreem lay bëri si làmb moom moom mbër boo xam ne xam nga boo xam ne day bëri lépp te bari mu ñëw wane loo ne wanawul wanawul loolu si làmb ñu bëri ñuy gis ne day réservé wala affaire yooyu fekk lu mu ëmb si bëri sa ëpp na lu muy wane moo dama la combat war la ku ne mu daan sa boo xam ne amul mënul moytu mbër si làmb parce que Modou ko jaaxal quoi mais combat gis mu def lu mu daawul ko mu reculer waaw ma adversaire bi nag noo war a bëri la ku ne am na nu mu war a bëri yow mbër bu nekk mënu xoolal ko mbaam bu ne ak nu bu bëreeg yow moo tax ma ne la ah, dafa am mu laa wax biir ak ku ne am na loo mën a daanee sa morom mu maanaam bu ne bu la ëmbal am na loo xam ne mën na daan ku ne boo yoo am na loo xam ne tam ne na si daan Modou Lo jëlee bu rëy moom tamit am na ko. moo nu mu war a entamer combat ma mais c'est que ah, du mbër bu ñuy digal demal defi demal moom mu laa wax sànq dama ne Modou bëri na ak ñëpp am na expérience su la am Modou tey doo ko digal dara xam ne lépp lu moo def si la am xam na ko booy ñaakay la ñuy wax mu ne moytu Modou pièce ko si biir bëre. loolu moo loolu moo loolu la ñu waral. waaw ñu gis Modou mën na combat mën na en général combat bu gaawee dina ko arrangé ci benn côté mais combat bu yeex moo ko gën a te boo ñaan ñu gis mu ne mbër mbër muy xaar la. boo ñaa mën na ñaari bi kon Modou mën na ñaari boo ñaa mën na xaar mën na combat bu gaaw mën na xaar boo ñaa xoolal combat bi ñu bëri combat bi day jël temps am cons lu muy def dafa am lecture de moom. l'activité de bëre l'activité de bëre l'activité de combat ak l'activité de bëre bokkul xam nga ngay bëre sa biir bëre mu lay xool lu ngay bëre mu bëre si kaw loolu daan la si bokkul ak da ko moom boo ñaa dafa am lecture de bëre sa biir action yow mën la si daan si kaw jaar la fa daan la si kaw loolu mbër moo loolu mbër mën a bëre rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy toll foofu loolu lañ gisee seen face à face bu mujj ku ne waxante nañ waxante nañ mais Modou dafa naqaree calculer si ay si face à face Modou Modou Modou lu muy wax face à face ak lu muy indi si lamb ji bokkul façade mu lay woon si face à face ak façade lamb bokkul. ok ku naqaree calculer la. bu gaawee avantage kon la. bon bu mën naa ne avantage mu booy booñaa lay doon hmm. waaw. booñaa moo am moo moo am avantage bu combat bi. si laa wax si bu gaawee boo déggee gaaw na rek booñaa avantage am la. Hmm. nga wax dama xam ne pare na pour loolu yëpp xam naa ne pare na ko parce que maa ngi koy gis si lu bari. <laughs> bu nu xeexee non dëgg ma xeex moom xam koo xam ne bu mu nekk élève la jàng lay jàng xeex kooku mënoo ko làmb la nag quoi làmb mun nga waaw mun nga ñëw fi yaakaar mu demee ne làmb moom làmb la chaque jour moo tax lu ne mun na si am surprise mun na am mais kii dafa jàng xeex a base boo ñaa boobu ñëwagul si làmb boobu mu ngi jàng muy jàng xeex kon kooku xeexkat la quoi déjà ba pare waaw waaw. waaw. est-ce que mën na ci la ñoo xamante ne ku ne da ngay réserver lu bëree bëri si ñaari xale yooyu moo Lo boo xoolee lu ëpp ci combat lu bëri day réserver day xaar boo ñaar tamit mbër mi xaar la est-ce que combat mën na ci xaar jël wëlbët gàng. jël jël bu rëy mooy jël bu rëy mooy am. dañuy lu ñu xaarante xaarante dañuy bëri par force. dégg nga. lu ñu xaarante xaarante laa wax. dinañu bëri par force. xaarante bi xaarante bi jaaru jënante maa ngi lay doon rek si calcul parce mooy parce que naa la xamal xaarante bi noonu day day day ko dégg xaarante demul foofu de déedéet. mais lu tax sànq nga ne jël bu rëy mooy am. non dama xam ne ñoom ñaar ku si daan sama morom la jël bi day rëy ñaara bërëkat la moo tax. mais man bu bu bu riiree wuti ci ko comme ni mu wutee Ama Balde. ba maamu boo ñëwee seen mbëri maamu yëpp da lay humilier da lay doon dóor taf taf lu doon suuf. est ce que moo lu mu bëreeg Ama lay bëreeg Boy xam nga dèjà Modou avant muy bëre Ama ak am lu ñu ko laaj moom mu wax am na lu wax kon kon xam na booy bi comme baabu nag ni mu koy bëree du mu bëree Ama lay bëree Boy Niang parce que Boy Niang ak Ama bokkuñu si lenn si xeex si laaj nañ ko mën a comb bëre ak Ama moo gën a yomb bëre ak Boy Niang. Ah, parce que Ama day ñëw xam ne Ama day dal si kawam xam na ne moom xam na ne Ama dèjà Ama jël na ko mais Ama fukk fukk lay bëre moom. ama fukk bi si fukk ama la moom si fukk ama la la la liggéey ba daan ama boo xoolee mais ama bu ko ama fekkoon dafa arrêté na boppam téye boppam am ñu ko am nuñu am am nuñ ko ñaax am nuñ ko wax am nuñ ko indee Modou mun a mun a am si combat boobu de parce que ama laf moo gën a diis bu dee si poids la waxu doole leneen la moo ëpp mun a am problème mais mais Modou loolu la xam Modou loolu xam moo tax mu ne bu a yomb bu rek booy ñaar kon moom xam na Boy ñaar bëre moom bëre Boy Niang yombul xam na ko xam na ne bërëkat la xeexkat la te am mooy lu ma la sànq dafa am lecture de bëree Boy ñaar dafa dangereux si bëree. du duggoon Pikine fas yéenee duggaat Pikine loolu lu muy def ci mbër. ah Modou c'est pas la première bi ñaar dugg na Pikine duggaat Pikine duggaat ah, ëpp coow la fa jël. waaw mais loolu moom làmb la rek ay Pikine yooyu waxu Pikine waxu làmb la rek waaw waxu làmb la rek loolu waaye gars yi neexal làmb rek boo ñu dugg ci détail yooyu mais qualité mbër yi ñuy bëral bokkuñu bokkuñu qualité mbër yi ñuy bëral bokkuñu boo xoolee si mbër bi si ama combat boo koy bëre day dépendre si adversaire bi ngay bëral dépendre wu si quartier bi si adversaire bi lay dépendre parce que quartier bi bëréwul adversaire bi mooy bëre ah non nest pas te adversaire bu ne xam nga lu muy luy forme ak luy faible am Modou respecté na Boy Niang trop nu mu respecté ñaa Niang mosu ko respecté mbër loolu leer lu leer la man maa la ko wax si combat Modou lu mu bëree yëpp laa la wax nu mu respecté Boy Niang respecté ko benn mbër si kaddu ak si lépp si boo xoolee sax si sereem ak yëpp xam na ne ndaanaan la am. mais Babacar tey ku ne soose ñu ne soose bu faas tey ñu xool benn mbëru faas ku ci mel ne Gris noo ay nattu daal koy daal ci ay coow yoo xamante ne tey ñu ñu ngi ak accusation la coow li bari na trop internet bi fu ne ci ay problème boo xamante ne ñu bëri bari nag def benn soutien génn xeexal ki nga xamante mooy seen lutteur mooy Gris Bordeaux parce que doomu réew mi la te doomu Sénégal benn mbir bu ko dalee. ku ne génn def ci sotti tey sooce soocé tey ban soutien lay apporter ki nga xamante mooy Gris Bordeaux ak lan lay wax ci loolu tamit bon loolu sànq rek maa ngi doon waxtaan ak benn grand dama ko ne mbir mi daal ni ko ñëpp déggee man loolu laa ko déggee parce que ba léegi tooguma ak kenn si dirigeant écurie Fass wala toog ak benn membre famille Gris waxtaan na man si problème bi comme ni ko ñëpp déggee rek noonu laa si yem barke Sëñ Tuubaa Mbàkke xaw ma am na xaw ma amul aduna nag xëy dégg wax boo xam ne dëgg lay doon parfois du doon dëgg mais man lu ma mën a wax rek mooy ndey mili gi muy Gris Bordeaux si boppam moom moo war a yeewu ñëpp moo war a génn leeral liñ koy tuumaal lan la parce que neexul kenn tey koo jege Gris wala nga dëkk Fawa nga dëkk naa di dégg loolu si kaw Gris parce que Gris lu muy lu muy représenté moom am personne si làmb ak si dëkkuwaay buñ tegee baar yi si kawam siy wax ñëpp xëy na tey dañ siy wax ni am lu leen métti wala xam nga bëgguñu du gàkkal deru gi wala affaire demee noonu ñun ñëpp mais xam nga nekk tey doomu aadama tey man man bokk man sama gis-gis lépp lu may wax tey dama bëgg mu nekk lu wér loo xamante du ma ko layoo ëllëg mun moo toog fii di wax loo xam ne même bokkoon ndey baay sax mu demee neneen tam da nga ko leeral ma yow ma mun mun du ma si wax loo xamante tam wóoruma tuuma la teg nañ ko si kawam am nag amul loolu moom rek moo ko mën a leeral kilifa la defar njaboot yor doom yor famille tuuma mel ne tuuma garaaw la neexul kenn nag ku mu jege wala ku mu dëkkal mais pour mu libérer nit ñi ñu bañ am benn détail bu subaa doo daje kenn am looy expliqué moom mooy gën def sorti leeral pour ñëpp am jàmm kenn woo ji waaw moom Gris 2 moo wax loolu mais pourquoi ñoom ñu xam loolu pare Gris 2 di dem foofu mais loolu su loolu moom la wax rek loolu lépp mun na nekk ay problème yu ñu defar la wala yu ñu fabriqué la mais Gris Bordeaux moo ñu war a dimbali ñun tant que ay nitam. ko jegee ndax affaire affaire dafa ñu metti moom laa la xam nga dara bu la métti tamit te amoo lu leer bu si sori. moom moo ñu war a dimbali te yàlla tax mu gën a leeral wax nañu lu leer ñu xam lan la parce que tey jii tam tam rakam wax na ko te lu wax tam mun na nekk dëgg mais ñee wax nañ tamit quoi mooy lu nga rek ku nekk da nga wax. moom moom moom moom moom mu ñu tuumaal moom moom moo war a yeewu ñëpp mu yeewu la yow yeewuñu ñu ñëpp. dëgg moom moo war a gën soog lu wax lu leer wax qu'est-ce ci euh, ci euh, coowal Gris Bordeaux rek ba léegi laa desandi ak moom am nañ tamit jamono ji tamit yeneen coow yu ndaw yi ñu dëkk tamit ci biir Fass ñu bari ñu ngi wax ci côté euh, ki nga xamante ne mooy Diène Diouf Kéré ak côté Ada Fass na la waa fa fas yéene ànd ak xale boobu ànd ak moom si bis bi la 17 diggante moom ak Zarko parce que ñu bari ñaan Diène Kéré ak Ada Fass neexooñu est-ce que loolu c'est vrai que dëgg wala du dëgg allah heure bu ñu waxtaanee rek xam-xam feeñ. waaw yow moom sama waay nga yow moom xama rek yow moom di leen ñaan yàlla yàlla defal lañ jàmm defal la sutur defal la xéewal fépp fa nga bëgg a yóbbu sa chute bi yàlla yegg la ba nga am télé joo xam ne ñëpp ñu si coow quoi waaw di gërëm waa Fass ñëpp di gërëm tamit sama sponsor waa Bawol promotion PDG bi Momar Talla Ndour di ko ñaanal yàlla moom jabaram Maram Ndour di la ñaan yàlla yàlla may leen fan ak wér ñu fekkee njëriñu njaboot gi yëpp waaw ñeen loolu laa la ñaan di ñaanal waa faas combat yi ñu yëpp booy Fass yi am combat yëpp waa Fass yëpp am combat ak waa Medina yi am combat yàlla na yàlla may nam seen combat yëpp yàlla defal leen seen sedd guy sin sin waaw jaajëf garan jaajëf jaajëf coach coach Socé lañ sekkaloon waxtaan jaajëfal nañ leen incha allah ba beneen yoon